Euh, du dem justice. mais moom nag particulièrement da doon jël ay position yoo xam ne du day ñaawlu taxawaay nguur ci yenn sujet d'actualité. waaw loolu dafa dépendre ci li ma doon wax sànq ku nekk ak sa mais soo seetloo ñi ko jiitu woon nekkoon médiateur dañu amoon réserve ndax doonuñu woon critiquer action publique bi doonuñu jël ay prise de position bon moom tam nature am la personnalité am la bon su ko neexee mu def ko après il assume mais généralement ñi doon nekk médiateur doonuñu woon am posture boobu dañu doon am réserve. waaye ñu ñëw ci loi sur le terrorisme euh, boobu moom ñu bëri jàpp nañ ne restriction des libertés la moo ko tax a jóg plutôt que xeex terrorisme parce que loolu existé na avant quand même loi sur le terrorisme bi 2007 la woon 2007 daanaka 2021 euh, bii li ñu def li muy indi ci coppeel sax bëriwul ay ay ay innovation yu ndaw fi ñu am par exemple financement terrorisme leerul woon ñu leeral ko pour réprimer le financement sur le terrorisme bu njëkk ba ñu doon def ay actes de terrorisme par exemple mu mënuñu woon saisir seen i léegi def nañ ko benn organe boo xam ne mooy l'organe euh, de saisie des avoirs la confiscation des avoirs ci ñi nga xamante nañ dugg ci wàllu terrorisme piraterie maritime amul woon ci suñu code pénal ñu dugal ko ci fi ngeen wax bu njëkk ba perpétuité léegi ñu def ko réclusion criminelle donc ay changements mineurs la woon ah. mais xam nga li mu indi mooy benn li ma doon wax sànq rek bi ñu defee constitution ñu ne nouveau droit ñu ne góor jigéen góor jigéen dañu bëgg dugal kenn gisul góor jigéen bii tamit même chose ñu ne léegi dañu bëgg Sénégal ku manifester da ngay jël sax sa kii dox fale génn benn pancarte ñu ni terroriste jàpp la xam nga loolu wax wax wax lu la neex la aussi parce que loolu mënuñu ko mais politique moo demee noonu c'est-à-dire politique da ngay graawal affaire yi manipuler opinion bi bon parfois je dis c'est de bonne mais su exagérer c'est parce que après citoyens yi dootuñu comprendre da nga leen di normal da leen di jaxase seen xel quoi mais loolu la mais loi sur le terrorisme dara amu ci woon ah. loi sur le terrorisme am na depuis 2007 mais fii am na ay manifestations yu bëri yu am yoo xam ne dañu dañu sax lakk ay affaire mais ñooñu topp ñu leen pour pour terrorisme donc c'est différent terrorisme dafa nekk loo xamante ni su fekkee dafa am une entreprise de terreur de l'État ñëw menacer liberté yi ordre public bi intimidation terreur publique loolu la mais mais nag am nay galgal ci biir comme surtout ci wàllu communication léegi sax journaliste yi am nañ ci wàll ci nouvelle loi bi ñu voté non pourtant amuñ ci wàll mais sauf suñu communication bi am na sauf suñu participer sauf suñu participer ci acte ci entreprise terroriste parce que des fois aujourd'hui lan mooy menace menace ci suñu dëkk dëkk yi dootul guerre ñu nag Mali du ñu guerre ñu nag Mauritanie lu ñu guerre France Allemagne guerre yi jeex na def nañ ñaar ñetti guerre waaye jeex na dootuñu guerre France Allemagne dootuñu guerre <laughs> <laughs> guerre léegi amatul xam nga léegi lan mooy les nouvelles menaces mooy terrorisme te gis nañu sous région bi dëkk yëpp am terrorisme daanaka suuf Sénégal ñëpp xam nañ ko léegi lan mooy kii mooy crime organisé crime organisé boo ñuy def ay crime yoo xam ne dañuy trafiquer ay xale trafiquer ay jigéen trafiquer ay kii yooyu trafiquer ay organes voilà très bien loolu mooy léegi c'est ça les nouvelles menaces léegi nag dëkk yëpp dafa am benn problématique bu am mooy nan ngay concilier. législation d'exception pour protéger la communauté, pour protéger le pays, mais en protégeant les libertés individuelles. da ngay def loi sur la sécurité loi sur le terrorisme nit ñi ne non d'accord ñu parce que da ngeen ñu bëgg léegi di surveiller ay caméra mais caméra yi defuñu ko pour surveiller nit ñi dañ koy def pour surveiller terroristes yi mais c'est vrai que sooy surveiller terroriste da ngay surveiller wala nit ñi léegi nag il faut choisir entre ndax war nañu surveiller terroristes yi yenn saa yi suñu munul bañ a surveiller citoyen ñu surveiller leen wala dañuy bàyyi noonu rek ne non euh, liberté individuelle la ñuy privilégier donc du ñu lutter contre le terrorisme mi ngi mel ne fi nekk ni Covid bi da ngay def passe sanitaire passe sanitaire mooy lan mooy il faut nga am sa vaccination bu yoree ne vacciné wu nga donc plus ou moins immunisé balaa ngay dugg fenn mais France gars yi dañ ñoo gars yi jóg ñoo bañ ñu ne lu tax ñoo bañ ñu ne ñu passeport atteindre à nos libertés individuelles gouvernement waruñu exiger passe léegi nag soo nekkee état yaay xool état yaay arbitré ah entre protéger les citoyens protéger la santé publique ak concilier ko ak respect des libertés individuelles problème loolu moo tax solo solo yenn saa damay dégg journaliste yi ñu ne wuy euh, Macky Sall li mu war a def mooy confiner non sooy gérer pandémie bu mel ni Covid tu es obligé nga tenir compte de deux choses un proportionnalité proportionalité mooy da ngay xool li nga xamante ni mënul ñàkk ak deux graduation des mesures mesure doo jóg rek ne bon suba dañuy def état d'urgence déedéet da ngay xool ndax mooy mesure bi nga xam ne moo gën a approprier deuxièmement day faatu foofu laay jeexale mooy da ngay war a protéger santé wu citoyen waaye économie warul warul warul waroo ko arrêté économie waru ak parce que arrêté ne da may protéger nii mais nit ñi da nga leen di protéger waaye dootuñu am lu ñu lekk. moo indi woon très bien donc moo tax c'est très compliqué à gérer état nag su loolu amee mooy xam ne mooy état mooy arbitré du Massamba mooy décider wala ba mooy décider état mooy xool fu intérêt réew mi nekk mu def ko te loolu je crois que président mi ngi ciy góorgóorlu bu baax. mais bi fan la fan la féetewee woon ba def ko. vote loi boobu noonu. fan. mooy ci état d'urgence bi non urgence bi maanaam ci tembe bi lu ko waraloon bañ gaawantu ko non xam nga Sénégal dañuy signé ay convention internationale sur le financement du terrorisme yoo xamante ne dañ ne état yi les états sangage parce que ñun dañ koy ratifié soo ko ratifié da ngay engagé wu pour dugal ko ci sa législation mais munoo engagé wu ba pare bàyyi ko noonu. doo ko dugal mais ñu bëri dañu ne événement mars yi moo ko anticipé. non mm-hmm. mais événement mars yi d' ailleurs suñu deful ndànk événement événement mars dafa nekk événement yoo xamante ne dafa am ay yeneen loi sax yoo xam ne Sénégal fii war nañ mooy yem. mais je donne un exemple par exemple. Mhm. Sénégal soxla nañu aujourd'hui une pour la régulation des réseaux sociaux. Mhm. réew yépp am loi sur les réseaux sociaux sauf ñun amuñu. réseaux sociaux lu neex lu neex nga wax. professeur daal yow président bu la dégloo kon dañuy lu jëm ci restriction liberté yi. ci réseaux pour régulation. régulation mooy xam nga lan amoo droit jël sa clavier saaga Ismaïla Madior wala saaga Ndeye faatu lu ñu la def jël sa réseaux sociaux rek jël di saaga leen lu wala jël wax ci ñoom loo xamante ni tegoo ko fenn wala wala dañ naan rek boo non grave soo soo jëlee loi bi dañ naan dañ naan da ngay restreindre liberté yi nañ bàyyi noonu rek nañ bàyyi ku ku ku ku bëgg saaga nga saaga Euh, ku bëgg wax loo xam ne kii nga wax euh, ku ku bëgg def diffamation réseaux sociaux nga wax def grawul wax nañ bàyyi noonu rek quoi Sénégal grawul quoi nañ maslaa rek non réew doxe noonu de réew danga naan citoyens yi ñi ci ëpp dañoo jub sénégale yi ëpp du duñu jël réseaux sociaux di saagawaate duñ ko def waaye am na quelques individus yu koy def duñu majorité bi mais lu tax benn minorité di ko def nga ragal protéger majorité bi ndax dañ naan da ngay restreindre liberté yi seetlu nga France ñoom dañuy def seen loi sur le terrorisme loi sur la sécurité loi sur le pass sanitaire ñoom dañuy def loi de débat bi nag day bari